ginaaw umum dañu jëppal kaddu gi serigne Makumba ndjay bokku ci vice président yi mom itam mu def ab synthèse ci rapport bi nga xamanteni ni ne mom la secrétaire doon sering ginaaw mom nak kaddu gu bi la serigne Ibrahima jëm kon ñi ngi leen di xaar inshallah taala ñoom kilifa yi ci kanam tu inshallah kon eh, ba lañuy sori rek dañu jëppal kaddu kàddu gu njëkk gi serigne Abdourahmane tafaddal maskura sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi ni ko mbokki taalibe yi jàll waxee Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi yépp naka noonu itam lañ koy ñaanalee sëriñ Abdul Xaadir Njaay yi muy xalifab sëñ Daaru Asan moom itam suñu borom yàggal ko fi loolu te ko ak mboolee njabootu sëñ Daaru Asan gi yëpp su ko defee ngir njëkkante ak waxtu wi ni ko sëriñ Moustapha Guèye présenté léegi ñu fa yéene lire rapport bi nga xam ne moo jàll mu doon ay activités yoo xam ne section Touba yi ñoo ko doon def ci année 2009 bi te nit ñi war ci am benn tolluwaay loola insha allah taala moom lañ fas yéenee liir suñu noppee dinañu liir orientation yi nga xam ni commission yi bëgg nañ ko def ci année deux mille vingt yi suñ ko noppee itam danañ liir bureau bi nga xam ne moo porté liggéey deux mille vingt bi insha allah kon dañ ko bëgg a tàmbalee ci versement daayira yi bu dee daaru jaay jama tax bàyyi si xasan bu daaru jaay versé na six cent cinquante mille Guédé versé na six cent mille Foras versé na six cent mille quartier bëgg Bamba versé na six cent mille Sourra versé na deux cent cinquante mille Kër na cinq cent mille Diamaguène versé deux cent cinquante mille Touba Ndiaye fële ci kër Sëñ Daara Sam versé na soixante quinze mille Mbacké Bari versé na trente mille Sam versé na douze mille cinq cent Loyeen versé nañ deux cent mille Daaru Salaam Guédé versé na deux cent mille Cindodi versé na quatre vingt cinq mille HLM versé na soixante huit mille Alia versé na cent quinze mille Daarul Minan versé na soixante dix huit mille cinq cent Daaru Diop versé na cent mille Kër Ñang versé na cent soixante cinq mille loolu kon soo ko totaalee moo la jox quatre million cinq cent soixante dix neuf mille quatre millions cinq cent soixante dix neuf mille mooy versement bi nga xam ne dayu yi ko bu jëm ci teg bi bu dee versement carte la demee Daaru Jaay versé na cent trente six cartes muy quarante sept mille six cent Gade versé na deux cent dix neuf cartes muy soixante seize mille cinq cent Foras versé na 74 muy 24 500 quartier Bëgg Bamba versé na 84 muy 28 000 Sora versé na 25 cartes muy 8 750 Kër Wele versé na 50 cartes muy 17 500 Diamaguène versé na 30 cartes muy 10 500 Daaru Salaam Guédé versé na 30 cartes muy 11 900 Tindodi versé na 10 cartes muy 3 500 Loyeen versé 35 cartes 12 250 Mbacke verset versé na 10 cartes muy 3500 Daaru Diop versé na 10 cartes muy 3500 versé 28 cartes total de ma lay 257 950 257 950 versement solidarité il est la demee mooy 30 000 yi nga xam ne daru est versé 30 000 est versé 30 000 est versé 16 325 faras versé 7 875 daru est versé 2 600, 2 est versé 30 000 kon loolu soo ko 700 francs 116 700 francs financement yi ni magali il y a 42 000 Gali, il y a 32 600. dimbali a xam ne social doon de ko 331 000 café commission commission de bu mu sana dajé café de Nitangal, tangal dem 700 ci 16700 tourna yi de xamné commissaire directeur de amalon nako ci euh, euh, section touba 20 000 assemblée générale bi gade 147 000 transport 20 000 café ak 13 500 photo yi compte bi photo francs lañ photocopie fii si nga xam ne moo jëmoon ci ndar ji huit cent francs réparé benn machine ordinateur cinq mille photocopier rapport yi nga xam ni moom itam moo jëmoon ci ndar ji deux mille crédit téléphone dix formation bi nga xam ne administrat administrative doon la ko def neuf mille euh, reçu matal ñu liggéey lu ci cinquante bloc muy vingt cinq mille yéene mbayum kër sëñ Daaru Sanga sept mille francs ubbi ab site internet ci vingt huit mille yéene liggéeyu Kopantuba cinq mille dem 50 000. assemblée générale 50 000. 50 000, compte 30 000. taxi 5 000. versé magal de 3 millions kon loolu boo de 3 851 mille 500 francs 3 851 500 francs kon boo xoolee 4 millions 579 mille 500 boo ci génnee 3 millions 651 mille 500 kon li fi reste mooy 727 mille 500 francs solidarité bi nekk 106 mille 700 kon soo leen boolee ñoom ñaari ñaar yi des ñaari reste yi dafa lay jox 844 200 francs 844 200 francs xëy na bu ñu ñëwee ba ci commission finance dana gën a leer fii su ko defee activités yi nga xam ne commission yi doon nañ ko def tàmbalee woon tàmbalee woon ko ci comité directeur bi ginnaaw bi nga xamee ne fal nañ bureau bi mu tolloon ci 45 membres dafa loon na orientation commission yi amal ay réunion lu toll ci sept ak ñaari assemblée générale amal ay waxtaan diine ànd ko ak commission yi amal itam cinq réunion comité directeur réunion exécutif itam joxe woon na ci ndigal ne nañuy dajee quinze jours yu ne quinze jours yu ne itam ñu amal réunion commission weer wu ne ñu amal réunion comité directeur ak section bi kon soo xoolee lu toll ci 22 réunion amal nañ ko ci commission yi bu dee ci section bi 5 joxe woon na ndigal tam quartier bu ne na joxe 2500 mooy solidarité yooyu ñu doon laaj amal na ay tournée ci kër sëriñ si amal na benn euh, séminaire ngir gën a tàggataat ñi nga xam ne ñoom lañ dénk liggéey bi te ñu nekk ci kaw ngir ñu mën a xam lan lan lañ leen dénk ba mën a wàccoog mbooloo mi amal na itam ay siyaar ci kër sëriñ si ngir euh, tolluwaayu liggéey bi ak leeral leen ko ubbi na ab compte ci banque CBAO bi numéro numéro compte bi mooy 35 19 49 08 101 35 19 49 08 101 joxe woon na ndigal itam ne benn daayira wala benn commission bu mu def dara te jaariwul ci bureau bi amal itam ay tournée ci daayira yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biti ngir sant leen fatali len carte bi bees nga xam mo fi amoon ak sas bu dé commission organisation ñu wane taxawu nañ magali lu tollu ci ñett muy seigne Baye soxna Fatimatu Fatimatu euh, bintu hadi Rasul màggalu Baye Mor màggat ñaari rakkaay ndar yi mom itam ak xew-xew loolu boo xamé jaarum na fi taxawu nañ ko lu tollu ci sarax itam bu dé ci daru jaay taxawu nañ ci fukki sarax ak ñett bu dé gëdé taxawu nañ ci bu dee kër wele taxaw nañ ci ñeent quartier bëgg bamba taxaw nañ ci juróom forage taxaw nañ ci juróom ba euh, sarax euh, ñaanuk sëriñ abdul xaadir kan kon loolu soo ko xoolee lu toll ci vingt-sept sarax taxawu nañ ko amal nañ ay formation yu jëmoon ci ay accueil hébergement mooy nan la ñuy dalalee nit ki maam nan lañ koy teeroo nan lañ koy dalalee waaye itam ak comportement bi nga xam ni membre commission bi war na ko am taxawu nañ ci nañ ndigal yi nga xam ne moo moo jaaroon lu mel ne Daaru Salaam bukki baar ga ak liggéey ku bantu ba recensé yi itam membre yi nga xam ne ñoo bokkuñu commission bi defarlu ay batch bu dee commission sociale ñu wax ne amal nañ ay formation lu toll ci juróom-benn mu jëmoon ci lan mooy social ak kan moo ko war a doon ak lu jëm ci wàllu bind ak njariñul campagne amal nañ itam ay ndimbal ci koor gi seeti nañ ñu tawat amal fi ay njaal amal fi ay ndimbal itam ci tëbës gi waaye amal fi ay relation ci daayir yi defal ay reçu matal lu toll ci 50 blocs communication ñu wax ne amal nañ ay formation lu toll ci juróom mu jëmoon ci parler mooy nu ñuy waxee ak nan la ñuy bindee ak nan lañuy def ay plateau fexe nañ ba bépp information boo xam ni war naa jàll ci membre yi mu doon jàll ak ndigal yi nga xam ni moo moom doon jóge ci kilifa yi war a jàll si ci mboola mi ñu fexe ba mbooloo mi jot ci ci jumtukaay yii lu demee ne whatsapp facebook ak rajo yi ubbi nañu itam ab si benn site internet waaye assemblée générale itam ñoo ngi doon jël ceewaay bi Euh, ñi fi daan teew ñëpp xam nañ ñu toll ci walu jumtu kay ñu wax ne am na ñaari machine yo xamni ne bureau la commission culture ñu wax ne jang na ñaari kamil ci assemblée générale yi ben diwan xasida jang nañ ci 120 salatu ala nabi jàng nañ ci 50 000 matlabu sifaye jàng nañ ci 774 ñaan ak mam soxna jang ak seigne basirou njaay mohamedou hassan mom itam jang nañ fa ñetti kamil alcorane gi nga xamni jang nañ ko ci quartier yi tollu na ci 28 kamil kamil ndar ji tollu na ci 174 commission administrative mu wax ne amoon na ay formation jëm ci njaay nu ñuy jaayee carte formation nu ñu doon jaaye carte la defal membre ay membre am waaye wax na itam fédération bi jox na leen ay carte lu toll ci 800 cartes nii lañ ko séddalee Guédé jox nañ ko cent 220 cartes Foras jox nañ ko 70 cartes Daaru Ndiaye jox nañ ko cent cartes Kër Wele jox nañ ko 50 cartes Daaru Minam jox nañ ko 30 cartes Quartier Ba jox nañ ko 80 cartes Diamaguène jox nañ ko 30 cartes Sourra jox nañ ko 25 cartes Tindodi jox nañ ko 10 cartes Looyeen jox nañ ko 35 4 Mbacke Bari jox nañ ko 10 4 Daaru Diop jox nañ ko 10 4 commission finance mu wax ne ci versement yi jot nag 4 millions 579 mille financé na 3 millions 851 mille 500 kon reste bi nga xam ne moo des muy 700 200 727 mille 500 soo ko boolee ak solidarité bi 116 mille 700 ak des yi nga xam ni des yi nga xam ni moo fi desoon daaw tolloon ci 111 mille 750 Comme ça, boole li des 955 950 francs. 955 950 francs comme moi mooy li nga xam ni qui est sur la section tuba bi. bagage itam moom ñu la demee janvier li 95 050 francs février li na 341 800 mars li na 307 400 avril liggéey na 407 500 mai il na 228 450 euh, juin liggéey na 218 500 juillet liggéey na 239 750 août liggéey na 199 750 septembre liggéey na 267 500 octobre il na 80 95 500 novembre liggéey a 301 225 kon loo de loolu soo ko 3 561 000. 925 francs 3 millions 561 925 frais yi tamit ni la démé. frais yi ko waxé moy ñi nga xam ak bagages yi nga xamni ak li ñuy jëndat. janvier frais na 85 février frais na 108 mars frais na 108 000 avril frais na 108 000 mai frais na 108 000 juin frais na 95 000 juillet 95 000 quatre-vingt-quinze mille septembre quatre-vingt-quinze mille octobre quatre-vingt-quinze mille novembre quatre-vingt-quinze mille kon loolu soo ko boolee moo la jëm un million quatre-vingt-sept mille ci bagage yi nga xam ni doon na yàq ji di ko defaraat lu mel ne indi ak segukaay ak transport def na ci onze mille cinq cent defarlu ay rosi ci dix mille defaraat ay type six mille uuse matelas lu toll ci cent cinquante cinq mille defar luwaat ay tub 5000 jënd xombu 1500 defar lu basang 25000 selour 1500 pentiraat basse 13500 ak chin 17000 woomu basang 12000 defaraat 50 matla 105000 defaru kuddu 8000 marqué indi ak defaraat tip 10000 lolo kon soko ko totaalee ma lay jox

Soko Goualek, des 500 000 de son Dao. Tolant qui est 110 825. Pour moi, il y a 3 200 $1 francs. 3 200 $1 950 Pour moi, il y a des kickies sous. Bagas. Ndari Gitomi, il y a des 130 000. Darouyaï, verset 930 000. Giammagan, verset 60 000. Foras, verset 125 000. Kati Bugabama, verset 925 000. Kër Bele versé na cent vingt mille Soura versé na soixante mille Loyen versé na soixante mille Daaru Salaam Guédé versé na cinquante mille Asalem versé na vingt mille Alia versé na vingt cinq mille Kër Ñang versé na vingt cinq mille Daaru Diop versé na vingt cinq mille Tindodi versé na vingt cinq mille Touba Ndiaye versé na vingt cinq mille Daarul Minan versé na trente cinq trente cinq mille Mbacke Bari versé na huit mille kon lolu soko totalé mo la ñu 1 million 43 mille moo ci dajé won ñu versé 1 million bi ci comité bi nga xamné ñu ñoo doon euh ci ndar gi mu dess 43 mille bi ñu demee ba ñëw itam mo am ay pass yo xamné dafa jaxaso won ci auto yi lolu ñu fay ko ci lu tollu ci 15 mille mu euh, kon li fi desoon 18 mille francs mo desoon ci li nga xamné mo dajé won ci ndar gi kon lolu moy rapport bi nga xamné jamono na ci versement yi ak lu jëm ci carte ak solidarité ak financement yi ni mu demee yëpp ak activités yi nga xam ne commission yi doon nañ ko def ak lu jëmoon ci wàllu bagage yi ak lu jëmoon ci wàllu wàllu ndar ji bu dee nag li nga xam ne moom lañ jublu mooy orientation yi nga xam ne commission yi nas nañ ko ci année 2020 bi ngir bëgg koo liggéey dañ ci jiital rek comité directeur bi dafa wax ne tomb bi ci njëkk maanaam weer wu ne nay daje benn yoon weer wu ne nay daje benn yoon waaye tam nay amal exécutif avant comité réunion comité directeur waaye après comité directeur itam nay amal réunion exécutif commission yi nañuy daje quinze jours maanaam réunion commission yi am kër sëñ bi nay doon fukki fan ak juróom section bi nay dajee weer wu ne waaye tam na fexe amal ay maanaam ak dox ay jéego jëme ko ci section yi ngir fexe mu yokk amal itam relation ak daayira yi kër sëriñ si waaye fexe ba amal assemblée générale ñaari yoon ci at mi waxtaanu koor gi nga xam ne moo daan am itam ci quartier yi ñu soppi defin yi fexe ba amal benn ak siège social boo xam ne dañ koy occupé la ca war nekk lépp ñu def ko ca commission bi itam ak daayira yi nañuy maanaam commission yi ak daayira yi nañuy respecté règlement yi nga xam ni comité directeur bi ñu ngi koy joxe waaye tam nañ amal ab rapport juróom benn weer yu ne kon si mois yu ne mu fexe génnee ab rapport ñu wax itam solidarité bi nañ koy soññee bu baax ci daayira yi ndax mel na ni des na reçu renouvellement yi nañ fexe mu dem ci day daayira yi ci bu gaaw secrétaire yi ak président yi ñu boole leen ak commission yi ngir ñu mën a saytu seen liggéey reçu yi daara ji itam daara si njaar san ñu wax ne nañ ko delloosiwaat sas itam ñu xool fexe ba nan lañ koy yokkee ndax gis nañu war naa mën a yokk règlement intérieur bi nga xam itam mbooloo mi amoon na ko te kilifa yi bindoon ko bu yàgg ñu wax ne nañ ko delloo si ngir ñu man ab ab ana mën a am ab delluwaay ndax léeg-léeg ñu am jafe-jafe ci bu ñu ñoo nit ma day neexu làmmiñ wax ba wër moroomam rek waaye lenn luy wane ne moo am na am na dëgg amut waaye moo tax ñu ne kon règlement intérieur bi nga xam ne am na te kilifa yi bindoon ko muy doxiinu mbooloo mi nañ fexe ba delloo si ko mooy mooy tax saa buñ buñ gagatee mën caa dellu moom mu moo mu lijjanti ñu na fexe amal ay ci kër kilifa yi waaye fexe amal ay ab sanction itam ci nga xam membre yu bureau yi la am sanction nga xam ne ku ci def loo xam ne jaaruwul ñu ñu ñu teg lay daan waaye tam na tënkal comité bi maanaam waxtu réunion yi muy tàmbali ak waxtu yi jeexal yi ndax loolu dafa ci am solo lool fexe ba respecté itam melokaan yi nga xam ne moom la ñu ñëwee ci réunion bi waaye fexe amal ab journée culturelle boo xam ne Sëñ Daaru Asan lañ koy defal waaye itam wutal bureau bi maam jëmmi bureau yi ñu wutal leen benn règlement boo xam ne ñoom itam ci la ñuy kon loolu mooy comité bi administratif orientation yi dafa wax ne bëgg nañ ñi ñuy fal ci quartier yi ñu doon xam liggéey bi ndax loolu ñëpp nañ ci am jafe-jafe waaye tam nañuy fexe ba administrer quartier yi mooy quartier bi ñi fi dëkk ñëpp te bokk ci daayira bi war nañoo xam ñaata kër la war nañoo xam ñaata membre lañ am waaye administratif ñoom nañuy fexe ba administrer ñoom itam quartier yi ak kër yi ni ñu ko waxee dajale fexe ba dajale archives ci image ak document fexe amal benn registre boo xam ne nii mbooloo mi yëpp dañ cey nekk waaye di dajale PV yi maanaam kayit yi nga xam ne wala li ñuy li nga xam ne moom la ñuy tënk ci réunion bureau yi ñu di ko ñu fexe ba di ko dajale mooy mooy waral ñu mën ci am ab yi bëgg nañu amal formation ñaari yoon ci at mi waaye amal amal itam ab tournée ci kër eh, ci quartier yi amal benn fiche boo xam ni waaye bureau bi ñoom ñëpp dañ leen cay def ngir ñu mën leen a identifier bëgg nañu itam wax nañu benn machine ordinateur boo xam ne dañ koy liggéey ñoom wax nañu versement yi nay dem directement ci compte bi maanaam saa bu ñu wootatee ngoon ngir ne quartier dañoo war a verse suñu verse rek bu ñu xëyee suba nañ ko dem dugal ko ci compte bi ñu wax ne dem secrétaire général yi nañuy fex bay di teewee versement yi di ko bind versement yi tam nañ ñëw weer wu ne waaye ñoom programme bi ñu jëloon ñu wax ne tënkoon tënkatuñ ko ci réunion commission yi saa bu ñu yégee ne versement war naa am ñoom danañ woo trésorier yi daje ñoom kër sëñ ba ñu def versement ñu wax ne tam solidarité bi nañ ciy financé solidarité bi ñuy dajale nañ ciy financé ñoom itam ñu wax ne bëgg nañoo yokk teg bi kon loolu dafa mel ne dëppoon nañ ci ak euh, orientation yi nga xam ne moo communauté bi jël na ko mbooleem financement yi nga xam ne ñu ngi koy finance yëpp ñu wax ne nay jaar ci secrétaire général bi waaye itam ci xaalis su xasee dépassé cinq mille rek na doon ab ruche social ñoom dañu wax ne bëgg nañu amal ñaari formation ci at mi waaye ci quartier yi lañ koy defee ñu wax itam bëgg nañoo amal mooy campagne de sensibilisation boo xam ne dañ koy defal maanaam mbooloo mi ngir lan gër leen a yee ci doxinu ab wat na lu jëm ci wàllu santé bëgg nañu itam dooleel solidarité bi comme ni nga xam ne noonu la amoon ci at mi jàll ci Korité ak Tabaski waaye bëgg nañu amal formation ci wàllu sécurisme mooy nan la ñuy fexe ba maanaam nit ki su amee jafe-jafe ñu man koo xeetli ba mu mën a mujj waaye itam bëgg nañu lëkkaloo ak kër docteur yi nga xam ni ñoo fi nekk lu mel ne hôpital yi poste de santé yi centre de santé yi ak croix rouge ak mouvement de santé yi nga xamni mo nek ci bi bëgg nañu amal ben panel bu jëm ci walu social ak santé waye tam bëgg nañu amal ay tournée ci quartier yi ngir soññi leen ci liggéey bi bëgg nañu dajale mboolem mboolem euh, borom métier yi nga xamni ño ño nek ci biir daayira bi waye loolu dañ ci lëkkaloo ak commission bi nga xamni moy administratif bëgg nañu tam amal ab ma ubi ben entreprise bëgg nañu amal ab visite bo xamni manam visite bo xamni membre yi nga xam dañoo bokkoon ci liggéey bi te jekk-jekk toog te xamatuñ lu leen téye bëgg nañ leen seet yi waaye lay doon mooy saa bu dañ koy def bëgg nañu tam weer wu ne dem ci barab suñu daaru asan ba maanaam setal ko jàng fa alquran bu dee ci kër gi itam ñoo wax ne ñaari weer yi ne bëgg nañoo dem setal ko bëgg nañu itam amal am ngont moo xam ne dañ ciy waxtaanee lu jëm ci wàllu santé waaye itam bëgg nañoo dooleel mutuelle de santé yi nga xam ne ñoo fi nekk ngir gën a mën a yombalal nit ñi seenum seenu faj bëgg nañu itam lëkkaloo ak société yi nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bi ngir ñu mën a am ak ñoom ay relation ba maam yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daayira yi te amuñu ay liggéey ñu mën leen a taxawu ba ñu mën faa liggéey communication dafa wax ne bëgg naa yaatal mbooleem information yi nga xam ne war naa dem ci nit ñi waaye di saytu saytu itam mbooleem réunion bureau yi waaye tam amal ab logo maanaam benn mandarga boo xam ne nii foo giseetee lépp lu bokk ci ahibaay yi da xam ne lii yëfi ahibaay la ndax loolu itam jafe-jafe am léeg nga dem ci kër fekk fa yëf yi axe bàyyi rawat na lu jëm ci wàllu këyit wala wala ay téere doo xam ba xam day nit moo ko moom wala moomu ko waaye tam bëgg nañoo amal ay formation mu jëm ci maam lu ñuy lu ñuy déglu wala lu ñuy xool waaye tam amal ay formation ci commission bi ngir gën a mën a tàggat membres yi site internet bi nga xam ne itam ubbi woon nañ ko ñu fexe ba àggale ko muy daaru njaay point org ak compte youtube bi nga xam ne itam moom ubbi woon nañ ko waye amal ab documentaire ci seigne daro Assane ba nga itam taxaw bis nga xamni ci lañuy ñuy manam bis bi ñu ubbi ci euh, internet bi mom itam bëgg nañ ko taxaw ak compte YouTube bi bëgg nañ mbolen bagage yu jappandal seenu liggéey ngir ñu mëna gëna mëna matal engagement yi nga xamni jël nañ ko ngir mëna a ak mbolo mi lolé loolu moy lan moy ñu wutal leen ab bureau bo xamni dañ koy occuper moy la fa war a nekk lépp dafay ngir difay man dajé def seen liggéey waaye tam bëgg nañu amal ñaari jàkkaarloo ñaari ñaari daje yoo xam ne dañ koy def jëme jëme ko ci information éducation ak communication waaye amal itam ay tournée ci kër ci kër ci quartier yi ngir mën a xam membre yi membre commission bi seen tolluwaay ak fan la ñu nekkee organisation ñu wax nañoo ñoom bëgg nañoo amal ay formation waaye fan lañ seen bureau commission kon loolu jàll na def ay tournée ci quartier yi ak ci sëriñ si gën a wàcc ci commission bi waaye ñu fexe ba fonk déguisement bi bu dee culture ñu wax ne njàngum alxuraan mi danañ fexe ba mu teel a tàmbali thème yi itam di niroo ci quartier yi mooy quartier yi li ñuy waxtaane samedi boo fa demee boo demoon Daaru Njaay la ñuy waxtaane lañ fay waxtaane boo demee Gédé moom nga fay fekk waaye fexe ba lëkkaloo itam ak culture yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier yi ngir gën leen mën a taxawu waaye itam euh, képp koo xam yàlla dogal na mu wàcc ab liggéey te bokk ci mbooloo mi ñu taxaw ko ci wàllum moo xam alxuraan wala xasida wala ay ñaan commission bi jëm bëgg fexe naa euh, bëgg na ak lëkkaloo commission culturelle bi Minanul Baaxil Xadim waaye itam bëgg naa defal membre yi ay formation xasida mat la bu suwa itam euh, bokk ci ndigal yi nga xam ne joxe woon nañ ñu di ko ñu di ko jàng waaye itam fexe ba recenser daara yi alxuraan yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër Sëriñ Daara fexe ba taxawal ab école waaye itam di jàngale culture maanaam kër Sëriñ Daara Assane kon loolu mooy orientation yi nga xam ni commission yi tënkoon nañ ko bu bureau fédéral bi total versement yi est de 13 910 845 13 millions 910 845 francs ci versement carte jot 351 150 francs bu versement daara ji 238 260 francs 238 260 francs bu dee ci wàllu jaayante yi jot na un million deux cent cinquante et un mille deux cent million deux et un mille deux cent francs mooy wàllu jaayante yi nga xam ne danañ ko def kon loolu soo leen totalee moo la jox quinze millions huit cent quarante et un mille quatre cent cinquante cinq quinze millions huit cent quarante et un cent cinquante cinq francs loolu itam nii lañ ko feree xëy na dañ ko tënk rek duñ duñ ci détails yi li ci am solo mooy euh, total bu mag bi bu ko defee buñ pare nag ku soxla ay détails moom boo ñëwee ci secrétaire ñoom danañ la ko leeralal ci somme boobu moo waxoon 15 millions 841 mille 450 francs lii 455 nii lañ ko lii lañ ci fere 12 millions 910 mille 460 francs 12 millions 910 mille ci fere kon su génnee ci 15 millions 841 mille 450 francs 2 euh, millions 930 995 que fay 2 millions 930 995 que def ci bureau fédéral Ce kon bureau bi nga xam ñoo liggéey 2 millions bi président Khadim Ndiaye imam sëñ badou Diop lañ Touba Ndiaye Abdou Ndiaye wilaya bu Darou Ndiaye Ndiaye bu secrétaire général Abdourahmane Dieng ma pen Ndiaye bu Daaru Ndiaye mom lañ ci toftal Mbaye An Ndiaye bu Daaru Ndiaye Mamor Ndiaye bu jàmm gën administratif khadim Diop bu Foras mom lañ ci cheikhouna Seexuna bu Gédé mom lañ ci toftal cheikhouna Ndiaye bu Foras mom lañ ci top social Serigne Galas Ndiaye moko jité bu Foras mustapha Dieng bu Daaru Ndiaye mo ci top Fallu Seck jàmm gën Seexuna Ndiaye quartier quartier bëgg Bamba khadim Ngaya Gédé culture Mahamadou Thiambeng moo ko jiite Cheikh Seck Maraxim moo ci topp sëñ Adama Ndiaye Gédé topp ci Maam Ibra Ndiaye Gédé Serigne Mor Ndiaye bu Foras topp ci communication Baara Ndiaye moo ko jiite Moustapha Guèye Kër moo ci topp Mbayaan Ndiaye Mbay Ndiaye kon bu Foras moo ci topp Khalil Ndiaye bu Foras moo ci topp Makhtar Ndiaye bu Daaru Ndiaye moo ci topp organisation Mourtada Ndiaye moo ko jiite Cheikhouna Dialé bu Daaru Ndiaye moo ci topp Abdourahmane Ndiaye bu Foras moo ci topp Abdou Ndiaye Cissé moo ci topp Modou May Fall Mbacke njaay Daaru Ndiaye Irada Sey Guédé Khadim Sey Guédé Moustapha Ndiaye euh, Daaru Ndiaye trésorier Serigne Cheikh Mbacke Ndiaye moo ko jiite Baye Fallou Ndiaye moo ci topp Aliou Sall quartier bëgg baam moo ci topp Abdou Ndiaye moom Baye Dame Ndiaye moo ci topp kon lii mooy biro bi nga xam ne ñoom ñoo porté liggéeyu domina bi ñoo ngi suñ ñaan suñ borom mu taxawu leen mu dimbali leen ba yaakaar ji nga xam ne moom la mbooloo mi am ba dénk leen liggéey bi ñu defee ko nu koy njort ci barkeb sëñ Tuubaa barkeb sëñ Daaru ñu wax ne itam commission culturelle bi li nga xam ne jàng na ko ci wàllu màggal bi nii la demee alxuraan ji toll na ci 1228 kaamil xasida yi toll na ci 1506 xasida salaatu ala nabi toll na ci 12000 wala kon 127 700 128 700 istighfar yi tol na ci 1100 euh, basmala 27000 kon loolu moy li nga xamni commission bi saytu nako ci walu Aksala lu jëm ci alquran qasida ak salatu ala nabi ak istighfar ak basmala alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh man ci kaddu am solo kon ñu xam dafa am mbokkum julit mo xam dafa bokk ci mbolo mi mo dafa ané do won dafa febar muy ndimbal kep ko xamne yalla man lo na la ko rek sosial yi ñu ci bir mbolo mi lepp lu koy may dimbalé nga jox leen ko xamné bokk section Touba ak daayira bo mëna joggé jógee bala nga del rapport bi nga xamné moy mooy rapport activité année 2019 bi sëñ bi doon jàlle sànq nga yëg secrétaire bu jox la ko soo nga mën ko rand ak sa mbolo mo nga téwal comme sosial bi nga xamné suba inshallah dañuy agalé sëkk barabu sëñ Noor Samba xam ngeen né aji may bare bare ñang fay dem diko setal ba démb ñu def doon sëkk liggéey bi dafa des kon suba képp koo xam ne yàlla mën noona la ko soo xëyee nga jubali ci barab ba ñu yeggalee liggéey ba ñu fay def incha allah